leral tamit eh, doxinu doomu adama ci eh, dundam ci bir aduna ñu nekk ak Serigne eh, hat buso mom Serigne cerno nga xamne mom moy saytu kurel bi nga xamne moy commission culturelle di taxawee jataay xam-xam yi sëñ bi ginnaaw bi. rahmatullahi wa barakatuh Serigne bi ñu ngi lay nuyu bax di nuyu wa Timis ñom ñep di len sante bu baax ci seen taxaway ci liggey bi di am bu baax baax <clears throat> ci ni ngeen ko waxe gis nañ len saasu nek ngeen liggey bi mo xam ndogu yi la mo xam waxtaan ñaan sun borom mu defal ñu taw feex ñu bëggoon euh, rek ci waxtaan bi yan coppite moo ci am euh, ginnaaw at yi nga xam ne gis nañ ne am yéen am ngeen ci liggéey bu yaatu ren yan coppite ngeen ci yota andi ci wàllu. waaw xam nga liggéey bu nekk moom faw mu am amélioration ci ak it di seet jamono ni mu ni mu mel ak ni mu dëppoo maanaam li ñu mën a wax ne li ci am rek mooy gën a jox gën a jox yitte gën a jox gëdd. Euh, waxtaan wi ak ñi koy def wax dëgg yàlla gis nañ ne euh, contextualiser nañ waxtaan yi maanaam xool mawduwaat yi nga xam ne tànn nañ ko ndax bu ñu bàyyi xel ne ci ñetti anam lay doon waxtaani koor gi day li ñuy wax ay mawduwaat muy ay thème ak ay durus durus fiqh mooy durus durus da lay jàngal sa diine comme tey fatwa yi wala ñuy jàngale koor wala ñuy jàngale asaka wala yu demee noonu yooyu am nañ ci yoo xam ne loolu lay doon am yoo xam ne ay fatwa lay doon muy ñeent soo dee xool ci ci li nga xam ne mooy tem yi nag moom mën na maa wax ne ren domaine bu nekk waxtaan nañ ci ci xew-xewi jamono ji domaine bu nekk domaine bu nekk waxtaan nañ ci ndax barki dem rek ñu ngi doon waxtaan njiit lu jub nan la war a mel njiit lu jub nan la war a mel ak lan lay ban jeexital lay am ci aw aw xeetam xam nga loolu jamono laaj na ko fi mu nekk nii tey ji fa toolam barki démb ñu ngi doon waxtaan ci euh, isaatul fasa faisa mooy ñaawteef yi nga xam ne mi ngi xew ci jamono muy wax yi ñuy wax ay ñaawteef ak di ko jëf ak yu demee noonu euh, sëñ Mahamadul Mamoun Cheikh Amadul Fadal ci waxtaan yi ci ginnaaw waxtaanal nañu waxtaan wu am solo ci sëñ Touba euh, réussir gi nga xam ne am xel mu rafetam tax na mu réussir ci yu bëri ci digganteem ak nit ñi ni mu doon yare ak ni mu doon tarbiya ak yu ni demee gis nga dem suñu abdullah docteur abdullah hassane mi ngi doon waxtan ci ad-dahwatu ila allah muy wote jëm ci yalla wa thème ci karam amna ci yo xam ci aklu am wala nas bil batil lay waxtan lek alali nit ñi mo xam te lewut ci yow am yo xamne ci kanam nay waxtan ci al ihlam wal ya muy seen metti mi mana walu taskatu xibaar rol bi nga xamne mi ngi koy ci ci ci murid yi ak nan lañ ci nan lañ ci wara a ay matway am yo xamne dana jangat ci xasida gu wax khalul yarkan xasida googu nga xam ne sëñ Tuubaa bi nga xamee ne sëñ Mamour Anta Sali jóge na fi ñu bëggoon mu dem ci Lat mu gàntal ñi doon dal ci kawam lam leen tontu te loolu gis nañ ne jamono ji waxtaan yu mel noonu laaj na ngir kilifa gi moo xam kilifa diine la gu gu mag mu xam ni mu war a tege tànkam ak ni mu war a def loolu tamit dana am ci waxtaan yi ci kanam euh, ci ci boo ko dee xool daal ci bu ko doon tënkal daal mooy ren gën nañoo jël ay matuwaay beneen bi gën a jox yitte waxtaan yi gën gën a soññ ñi koy def loolu gis nañ ne ñoom it gën nañ koo jox gëdd surtout préparer ñu texte bi nga xam ne xam nga fii waxtaan yi duñ ko def nii rek ñu ko déglu muy jàll dañ koy def sa ñeenti at wala juróomi at génne benn téere xam nga daaw génne nañu benn téere boo xam ne 360 pages la muy lu am solo incha allah feeg at néew tamit waxtaan yi nga xam ne moo fi jàll dañ koy génne mu doon ab téere moo tax ñoomit dañ leen di exiger ñu bindal ñu texte ngir ñu waajal téere boobu noonu loolu daal bu ñu doon tënk daal moom ci wàllu xam-xam ndax gis nga koor gi du caagin ne a ngay ni nga koy gisee nii rek ñetti weer ci ginnaaw jëm ñeent lañ ko tàmbali woon a waajal ci ay jataay yu wute ak ay propos 200 wala 300 thèmes yoo xam ne ci biir yooyu la ñuy joxe xool yi nga xam ne moo gën a yitteel jamono ñu ñu ñu waxtaan yooyu bu dee fatwa yi gis nga ne euh, bala ko ki koy waxtaan a jot dana ko jot daanaka juróomi fan avant man koo tont ci mbind ba noppi doog a ñëw tontu ko ñu ñu ñu dégg nga xam ne euh, am numéro boo xam ne képp ku amul laaj foo mën a nekk ci àddina bi dañuy jot ay ay laaj yu nekk yoo xam ne fu ne lay jógee ci àddina bi du caagin ne ñuy teew ci jotaay bi rek nga xam ne daanaka bët bu danañ ci tontu lu gën a néew euh, daaw koor daaw tontu nañ ci lu jege 300 laaj loolu yaakaar naa ren lay ëpp loolu daal su ma la doon tënkal euh, liggéeyu lañu saxaafaral ci ci koor gi day parti bu am solo ndax bu ñuy dundal jëmm yi nii lii dundal roo yi la. waxuma la ñi koy jariñoo fii rek ci jumaa ji waaye ñi koy topp ci àddina bi kenn xamul nu mu ndax quantité bi ñu leen di jox ak qualité bi ak it jëmm yi koy yi koy def xam nga fii jumaa ji it du ku ne rek lañu fi indi ngir waxtaan fi ndax ci jumaa ji laa ko déggee moom doo amati loo ciy teg ndax murid yi lu ñu déggee fii rek loola moom la ñuy jàpp mooy li moo tax kuñ fi indi dañ lay tànn dañu tànn liñ fi waxtaan te lépp dañ koy teg ci njàngaleem sëriñ bi ak sëriñ bi fi mu ñu joxoñoon muy fiq imam Malik dégg nga ki don def fatwa yi loolu lolu wax kon ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. daf euh, mel ni li ma bëggoon a laaj yëpp sax jot nga ma laaj xana rek euh, lu ci bëggon ki rek moy manam way waxtaan yi nga di tanne wa li ma la li ma la wax lay bu waxtaan mom ni ñu koy tànnee weesuwut ñu xamne borom xam-xam la ba noppit xam ko ci yoon wi xam na it wa domaine bu fekke domaine yi la mom ay tam yu wuté la manam par exemple tay thème bu nek wax deug yalla yag nañu jaxoso ak borom xam-xam yi fi thème bu nek xam nañ jëm ji nga xam japp nañ ne mo koy mëna traité ba noppi li wax ay ay orientation da ci am tay par exemple duñ la jox thème rek nañu waxtanal ci li mais dafa am ay ay yu koy accompagner nga xam dañ koy bind ne la ka taw jihaat lii lañ fi lañ bëgg waxtan yu jëm tay suñ la waxtanal ñu ci al ihlam wal ya mana taskatu xibaar murid dañ dafa am fuñ lay orienter jëm jëme suñ la waxtanal ñu ci njit lu jup nuy mel dañ lay orienter ci niñ bëgg nga waxtaane ko ki koy def tamit dañuy xam ne kii mën na ko kenn ku nekk tam wax nit ñi dañoo gën a foorante ci ci domaine yi ñuy waxtaane moo tax loolu dañuy tànn thème bi mu orienté ko fi ñu bëggee ba noppiit ki koy def dañ koy xool xam ne lii la man ba pare dañ koy déglu tamit nañ ko déglu ngir xool ba xam dëppoo na ak niñ ko waxee woon ñun su noppee dañuy xayma dañuy xayma waxtaan yi su jàllee ku ci gën a ñëw ci ni niñ la niñ la kiiyee woon ku ci gën a digg doomu wala koo xam ne xaw naa wàññiku yooyu yëpp dañ koy dañ koy xayma euh, tax na ñiy waxtaan tamit xam nañ loolu ba tax ñu jox ko gëdda lool ba nga xam ne tamit ñu leen di jox dañ koy jox dañ koy jox yitte lool lool waaw. nga dem ci gan ñi kon Serigne Abdou Lahad